net kon nag ñun ñu ñëwee fii di si dugg bala ñoo dugg ci lu leer la ñuy duggee si garage léegi mu dem bind arrêté ñëw jox ñu ni wax leen chauffeur yëpp ñu dugg si biir garage dugal oto yi ñu ñëw dugg mu ni lii balaa mat une semaine dinaa defar mbaar yi léegi nag boobaak léegi bi ñu dugalee mu jël oto yoo xamante ni bii ñu ngi koy jógee gaaru Thiès Gorom di ay R21 ñoo di ay kalaandoo du jóge foofu mu favoriser leen jàppale leen daal di bindaat jox leen ñu taxaw si kaw tali bi di yàpp suñuy client ci loolu la ñu loolu la mer daal di jël benn vaay boo xam ne nee na si góor xuma la bokk pour ni moom lay jàppale pour jox ko garage loolu nag la chauffeur yi yëpp bañ léegi nag ñu ñun dañ koy dañuy déclaré guerre grève ndax léegi suñuy grève bu ñu ko taa fi ko war a wax yëpp wax nañ ko ñu dem si si préfet wax ko ko mu nungul ñu lool ñu waxtaan ak moom wax ko li si xew moom dina ñëw si moom pour waxtaan ak moom boobaak ba léegi ñu toog di ko xaar dégg gisuñu ko gisuñu ko ba la 15 bi ñu jàppoon suñu garu garaw ñun la 15 dañu tey jii taxi bagage yi. Euh, taxi clando yi ak marché Ndiaga Ndiaye benn dawul tey. benn dawul clando dawul oto Ndiaga Ndiaye dawul taxi bagage dawul tey jii ku fi jënd sa bagage tey jii doo am lu ko yóbbu. yéen a ngi laaj tam ay jumtuwaay bureau. wax nañu mm. wax nañu ko suñu bureau bëgg nañ mu defal ñu ko ndax lool la ñu waxante woon ak ñun moom nee na woon mool na fi ay mool yéen mën geen a jël seen kees. ngeen tabax kii mais boobaak léegi place bi mu ñu waxoon ne da koy jox place yëpp jaay na ko ni woon place yi dinaa leen jox seen bureau dinaa leen fu ngeen def jàkk hmm? dinaa leen defaral ay mbaar yoo xam ne da ngeen si toog te ñun ay nit la ñu ay citoyen lañ ci dëkk bi lañ dëkk am na fi ñoo sëwër yoo xamante ne jël seen tension monté ndax naaj bu tàng bi ñuy taxaw bañ jël leen fi dinañ yóbbu di jël suñu loolu moom moo ko waroon a jëkk a bañ ndax depuis bi président ñëwee ba léegi lamp yi dañ woon da koo luyee keroog bi président ñëwee dañ may naa leen lamp yi mbay naa ko dootu fi jógee boobaak léegi nag lamp yi tàkku suñu sañu ko ñun amuñu lu may oto ay millions la ñu jël yor jënd suñuy oto di ko def transport oto yaa ñu ñi taxaw yéen ngi fay juuti yéen ngi fay juuti ñoo ngi fay juuti mosu ñoo bañ ak ñaar ñu ñu laaj fayal nañ ko léegi nag ñu woo ko ko mais moom ki nga xamante ne moo jiite domanial mooy koo xamante ne moom xamul nu transport doxee ndax transport dafa am nu muy doxee ki jiite domanial moo dem bi ñu wooyee bi ñu wooyee fële ci maire yi ñu toog pour waxtaan ak moom mu ni moom tànk day nungu bank mbaa mu nungu talal mbaa ñu dagg ko moom mu Moudou Fall ki ñuy wax Moudou Fall ma moo jiite dama ñaar moom loolu la wax ci biir nit ñi dañu arrêté yooyu yëpp yor ko bi ñu waxee loolu ñu jógee ci loolu ñëw mu fawér mu ni xalaandoo yi nañ ñëw dugg fii si biir garage di fi yàpp keroog coow lu mit la fi am fu ñu war a dem nag di ko fa jooytoo jooytoo nañ ko fa boobu ba léegi nag moom nee na yoonam nekkul ci affaire yi. léegi nag juuti bi nag da ngeen di continuer fay. juuti bi tey bu ñu bëgg su ko defee dañuy continuer di ko fayal mais bu ñu ko deful dañuy continuer dootuñu fay juuti tant que defuluñu lañ lañ bëgg. man li ma concerné defar naa gare routière ku ci dugg liggéey di nga fay taxe commune bi mooy taxe yu mu wote syndicat nag ñoom dañ ko gérer seen bopp waaye man li ma intéressé man en tant que maire créé nañ garage dinañ àggale travaux yi parce que partenariat public privé mënoo tëb tëb joxoon nit xaalis loolu signé ak moom ay convention bëgg a tëb tëb muy liggéey nga forcé ko pour mu àggale ko affaire syndicalisme nag intéressé wul maire maire li ko intéressé mooy population bi nekk si commune Notto Goudiama ñi ngi lancé appel nag ministre des infrastructures et des transports ne ko commune Notto Goudiama bu ko jàppee commune bu ndaw population bi 38 mille am la dañoo bëgg nag léegi nga affecté ñu ay yoo xam ne dañuy déparé gorom di ñëw Notto di dépare dakaar di ñëw Mboro di dépare tamit euh, Thiès euh, di ñëw nooto maa ngi laas tamit yeneen gare routière yi nga xam ni dañoo yor ay sept place wala ñu yor ay njaganjaay wala ñu yor ay oto yoo xam ni dañoo ne am transport yu leer ubbil naa leen samay bunt ci commune Noto nan ñëw ma ubbil leen jox leen ay euh, autorisation ñuy servir nooto ak li ko kon donc je lance un appel à tous les chauffeurs du Sénégal nan ma andil oto yoo xamante si nii dañuy nekk transport régulier ñëw serviral ma Thiès Noto serviral ma Thiès Bayax serviral ma Thiès Mboro merci merci